asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wa maxfiratuhu wa ridwan euh, ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di addu fii ñu daan addoo muy euh, Thiénaba TV point com télévision Mame Omary Ndak waaye nag di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa sunu sëriñ Baye sëriñ Abdourahim Seck nekk juróom-ñetteelu xalifa Mame Omary Ndak di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootu maam Amary Ndak Seck yépp lépp lu soqi ko ci maam Omar Talla wala mu soq ko ci maam Ibra Penda wala mu soq ko ci maam ma dikke ñu ngi lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay waaye nag di beral nuyoo imam Serigne Cheikh du Seck di ko wàcce ci wàccuwaayam di nuyu chef de village Serigne Alassane Niane Seck ak ñu nu ko bokkal ñëpp fa tabarakallah di nuyu nag macha allah képp koo xam ne rek yaa ngi ànd ak ñun du ñu seetaan ci thiénaba tv point com même à travers YouTube di ñëwaat di leen yëgal bis boo xamante ni si dey bis bu ñëpp a tàmm la bis bu ñëpp min la bis boo xam ne mi ngi ci xelu nit ñi xam naa ki may seetaan mi ngi naan waaw bis boobu dina amam du am ah kay dina am muy bis boo xam ni Cheikh a Tidiane Ndao mu bàyyi mot ndaw tàggkatu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sopp Seydina Cheikh moo koy def fële ca këram at mu jot muy takk tàkkusaanu Seydina Cheikh Ahmed Tidiane borom euh, Chérif borom Maroc borom Fass fa tabarakallah ki nga xamante ni sii mooy sunu sëriñ tarixa bi moom rek la am moom la cheikh jël jox ko bisam at mu jot mu di ko def muy tam xarit ba ci suba ga bis boobu nag mbokk yi ñëw na ku nekk xam na ni jamono am na nu mu tëddee waaye nag fa tabaaraka jàpp naa ni eh, mbir sax nag boo ko dee def te ñaan rek alxuraan rek la su sunna rek la lu jamono xat xat xat xat def ko sax nag def ñaan dafa am solo kon loolu la Cheikh Ahmed Tidiane yëg waaye am na lu mu ko bëggee ak nu mu war a doxee loolu bala ñu cee am xibaar ànd nañ ci ak moom parce que dañu tungu nu du teew ñuy nataal Cheikh Ahmed Tidiane rek la ñuy jox suñu micro mu nuyoo nag ñu laaj ko bis bi euh, kañ la wax naa leen ko sax waaye nan la ak ren nan la ko programme ak nu mu koy doxalee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi waa kër Serigne Thiénaba maam Ahmad Ndak Seck radiallahu taala anhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi suñu baay suñu sëriñ suñu soppe. bàyyi sëriñ Abdourahim Seck di ñaan yàlla yàggal ko fi lool ca wéral ko moom mboolem njabootu ma Ahmad Ndaak Seck yépp fa tabarakallahu di ñaanal suñu wayjur suñu baay suñu soppe suñu sëriñ bàyyi si Ahmad Tidiane Seck yal na yàlla yokk ay leeram yal na yàlla yeesal yërmandeem te yal na yàlla taas ñu ci barkeem ci barke Seexu Tidiane Sérif radiallahu taala an di nuyu chef de village sëriñ Alsaan ñaan Seck fa tabarakallahu di ñaan yàlla ab taxawaayam ci dëkk bi waaye fa tabarakallahu ay yéeneem sama borom yàlla na gën koo defal ay ndam ci kaw ci biir ak ci biti waaye jël nuyoo waa dëkk yëpp teg ci loxoom di nuyu suñu bàyyi Serigne Cheikh Amadou sek di jël nuyoo waa imaam yëpp teg ci loxoom di ñaan yàlla yal na yàlla yàggal ab taxawaayam moom mboolem ñu topp ci ginnaawam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu bu baax a baax fa tabarakallahu suñu wayjur bàyyi mu ndaw di ñaan yàlla yàggal ko fi yàlla dolli ak wéram ci barki yonent bi nuyu suñu yaay soxna Maguette Dia waaye di nuyu waa kër gi yëpp fa tabarakallahu suñu nuyoo seen i rek ñëpp mën nañu alaaji Pape ñuy nuyu waa bu baax a baax fa tabarakallahu euh, suñu nijaay seen Seydi Imaam yu baax fa tabarakallahu waa di ko ziyaara di ziyaara sëriñ a sekk borom ndigal ak tër yi nga xam ne moom la ñu gàlloo waaye di nuyu bu baax seriñ Adama Seck bu bàyyi sëriñ Taala Xaar di nuyu it fa tabarakallahu sëriñ euh, Abdul Karim Seck di suñu soppe di suñu xarit di suñu sëriñ di ko ziyaara bu baax fa tabarakallahu alaaji Pape euh, di nuyu sëriñ Cheikh Amadou alfa macha allah di nuyu Seydina Ousmane sëriñ Ma Omari Seck di am mbégte ak kontaan ci teewaat rek ngir leeral ci laaj boobu nga ñu laaj yàllaa ngi dogal eh, jaar la suñu jëmm journée Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Cherif ñu koy amal sak tamxarit ba ci suba gi yàlla dogal at mu jot ñu taxawal ko ci ay kaamil yu takk waaye ci ngoon git ñu daan def conférence bu rëy mbooloo mi biir cene baag bitib cene ba yépp daan fi teew ah macha allah ren nekk fukkeelu at ak ñeent ñu koy def kon loola macha allah yàgg naa am ñu ciy sant yàlla bu baax waaye ren El Hadj mu am ay coppiku ndax ah, li fi yàlla andi muy mbas mi yàlla na ko fi jële ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ab jaam la yàllaa ko fi andi yàllaa ko fi mën a jële macha allah li ñu am yaakaar it mooy suñu ko ñaanee ci jéggalu ko yàlla jële ko fi macha allah loola nag ah, sabab bis bi bokk na ci yu noonu incha allah mooy xëy wàcce fi kay ay kaamil daan nañu am ay kaamil yu takk fa tabaarakallaahu daaw defe naa am nañ daanaka lu mat fukki kaamil yoo xam ne nit ñi ñoo ko jàng yéene ko ci bis bi waaye yéene ko Seydi ko mboo suñu maam Ahmad Dak Seck ak mboolem gaa yi yàlla yi ko ci réew mi mu jàmm ji dolleeku ren it incha allah eh, mbas mi comme ni ma ko waxee tax bis bi dina am ay coppeeku waaw su ànd ak kàttan yàlla dañ koy xaw a oyofal ndax macha allah mbas mi moo ko laaj su ànd ak kattanu yàlla suñu xëyee wàcce kaamili macha allah yendu ba ngoon su ànd ak kattanu yàlla dinañu fa wasifa ci biir kër ga incha allah ca kër ga lañ koy wasifaa rek ndax euh, jamono fi mu toll incha allah ñëpp xamee ko noonu incha allah suñu wasifaa ba pare laaj Papa Abdoulaye Mbuub mu barkeelu incha allah docteur Alfahim sise waxtaanal ñu macha allah ci kër gi ci tarixa bi loola rek mooy jubluwaay bi ren incha allah laaj Papa Abdoulaye Mbuub kon ren daal nañu keñ képp ku ñu dégg nga xam ne daanañu waaxu ba ci ñëw ci yow macha allah yëkkati enveloppe jox la mais jamono rek moo laaj lool waaye ñëpp xam nit yéene yi ñu ko amee mooy suñu fa wàccee kaamil ñu ñaan yàlla sama borom génne mbas mi ci réew mi ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye incha allah alaaj pap ñu ci rendre hommage année bu jot imam alfahim ja di ko ñaanal yàlla di jàmbaar joo xam ni kenn ku nekk xam na ni fan wi guddul waaye gudd na taxawaayam ci canaba macha allah di suñu nijaay waaye suñu xarit ñu ko ci rendre hommage waaye ren it ñu ciy ñaanal suñu wayju di suñu baay di suñu sëriñ di ko xam ni dootuñu ko fàtte muy baay si Ahmed Tidiane Seck macha allah incha allahu kaamil dañu fay wàcc macha allah moom la ñu koy yéene imaam Alfahim Dia waaye comme ñu koy yéene Seydina Cheikh mu ak muxaddamam yëpp fa tabarakallahu année bu jot incha allahu loolu daal pap moom la ñu bëgg a doxalee bis ba kon ñëpp yëg ko incha allah ñuy gërëm it bu baax monsieur le maire Alaaji Taala ndax année bu jot. ab taxawaayam fes ci loolu wax naa ko dem macha allah ma ni ko suñ koy oyofalit di nga ko yëg macha allah kon incha allah ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi tàllal loxo ñëpp it di wax ne daal bisum ñaan la ñu ñaan sama borom génne mbas mi ci réew mi waaye ñaanal waa réew mi yàlla doolu fi jàmm doolu fi xéewal doolu fi sutura ñaanal ci suñu bàyyi bàyyi sëñ Abdourahim Seck yàlla yàggal ko fi naal yi mu naal ci kër maamam gi yëpp sama borom defal ko ci ay ndam yu kawe kawe ci barke yonent bi ndax ndamam mooy suñu ndam fa tabaarakallahu waaye ñaanal mboolem njabootu Mouhamadou Ndack Seck gépp alaaj ah, Pape daal loolu la ñu am comme première tontu. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane euh, leer na mbokk yi mi ngi noonu bis baa ngi noonu defe naa ni ko fàttale ko dëy at mu jot dañ ko tant tant bu rëy euh, daaw sax bu ma juumul génn nañ ko ba ci buntu kër Baye Cheikh loolu nag euh, moo soppeeku nag waaye bis bi moom fa tabarakallah ni ko Cheikh Ahmed Tidiane waxee kaami yéen fay wàcce dong ak mbalaan man fay lal ak yonent bi ñu fay tagg jar na def ko ngir ñaan yàlla suggandiku mbas mi jóge fa yàlla na ko yàlla def Cheikh jërëjëf ci compréhension bi defe naa ni eh, ñiy tàgg yonent moom lépp luy defar canaba rek seen loxo nga ca du ñu def lan luy yàq te du ñu def lu dul dëppook charte yi nga xam ni moom la ñu yoon may waaye moom la ñu santé may waaye moom la ñu moom la kilifa gi bëgg kon bis baa ngi noonu incha allah euh, bu nu tàmbaxartee ba ci suba ga ñun ñëpp bu nu xëyee nañ daje kër Baye mu ndaw wàcce kaamil tàllal loxo ñaan suñu julee sax ñu lal mbalaanu wasifa euh, bu nu fa jógee nag tagg yonente bi lu mu néew ne sëriñ Alpha Cissé waxtaan ci tarixa ba lu mu néew ne ñu fàttalikuwaat suñu suñu tarixa loolu am na solo kon damay jëlaat kàddu gi rek jox Cheikh Ahmed Tidiane mu def dernier message am laaj ko mu ñaaxaale nit ñi ak lan lay wax comme jamono bi dafa dañoo toll ci jamono bas nan lay lan ñan nan nan lay soññe nit ñi ci kuy ñëw noo war a def ba nga xamante ne si dina di nga dëppoo ak charte yi nga xam ne moom la yoon maye loolu mu ñëw ci rek ci joxe dernier message di leen dox laal dig daje incha allah tam xarit ba ci suba ga ca kër Baye moo ndaw Cheikh ku ne xam ne am na lu ñu chartanteel muy masque yeeg la ci war a la la ci aju loola ban message nga ci lancé ñi nga xam ne ñoom la ñoo la war a wuyu si. may ñëw foofu. Eh, waaye bala maa ñëw rek moo wax ni incha allah kenn ku ne xam na ne bis bi daan nañu koo dara jaale ay nit waaw eh, jël parrain ak marraine def ay invité d'honneur yu bari waaye ndax Thiénaba la ñu am wax naa Thiénaba ku bëgg la ne da ngay sa bopp ndax suñu ma waxoon nag sekk lim ñu fàggul mooy ngeen gi pàggteef loola nag mooy tax daanaka saa bu bis bi amee ñu jëlaat cër yi dugal ci biir dëkk bi loola yokk cofeel ci diggante yi waaye taxaat fa tabaarakallaahu kenn ku ci nekk gisaat sa bopp te yëg suñu sëriñ ñëpp ñoo ko bokk waaye ren it fa tabarakallahu kenn ku mu doon ci doomu aadama yooyu di ma déglu yégal ne bis bi yow laa ko dara jàlle macha allah waaye Cheikh Ibrahima Ndiaye di sama sama xarit ñu bokk nday borom alquran macha allah di ko xam ne ay taxawaayam ci man macha allah ñëpp ñu ci bëri ñi ñu xam xam nañ ni ah, teg nañ teg nañ seen bët macha allah moom it ñu jagleel ko ko fa tabarakallahu di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ak xéewal waaye alaaji Pape ci li nga ma laaj lii nga xam ni moom la ñu wax macha allah Eh, di di ay ay ndénkaan macha allah nga xam ni suñu njiitum réew di suñu kilifa moo ñu ko sant ca muy eh, masque yi macha allah ak raxasu ba set macha allah ak ak ak espace yi nga xam ni eh, distance nit ñi war nañ koo jëlante su àndee kàttanu borom bi loolu moom dinañ ko dinañ ko jëfle ndax am nañu xam ni incha allah ay masque dinañ ko dinañ dinañ ko fa dinañ ko fa yóbbu su àndee kàttanu yàlla. am na ñoo xam ni warlul nañ ñu masque yañ fay def waaye ko ci macha allah ah, waaye fa tabarakallahu képp ku fa ñëw bala ngaa dugg ci kër ga di nga raxasu di nga ko fekk bi sel dinañ la jox masque nga masque wu su àndee kattanu borom bi waaw loolu daal dinañ ko def te it macha allah bis bi rek it taxul waaye saa boo ñëwee ci kër ga yaa nga fekk biteel ba ah, ak ak ndox ma tege ci biir kër ga macha allah ndax it sàmmonte ak sarti yi waaw ab jaam nag li am mooy ñaan yàlla waaye lépp loo xam ne nee nañ ko lii soo ko defee loola mën na laa sori su boobaa dina sabab na sabab lu par pour def loolu loola incha allah alaaji Pape daal noonu lañ ko fas yéenee defee su àndee ak kàttanu borom bi kon daal kenn képp ku may diglu daal nga xam ni a ah, mbir mi jamono ko daa am lu fi yalla andi muy mbas mbas nag macha allah li ñu li ñu li ñu gëm ci suñu xol mooy yàllaa ko fi andi yàllaa ko fi mën a jële xanaa kay su boobaa kaam bi mboolem lañ fa jàng ci alquranul karim mbas mi ci mi wasi foofu yàlla nay génn mbas mi ci réew mi ci barke Seydina Rasulullah mboolem lu fa wax ci yàlla yonent bi yàlla na sama borom def muy génn mbas bi ci réew mi ba su ëllëgee mu dellu see ñu def ko nañ ko daan defee macha allah génn ko ca biti mu yaatu lool mbooloo mi fekk si ñu waaye tey ren di la yàlla namm laaj Pape Abdoulaye loolu daal moo nekkoon kaddu yi xanaa di gërëmaat rek seen réseau point net di ñaan sama borom yàlla na fa këpp barke bu yaatu. ba Niger yeeg naal yi mu amee ci canaba ci xadra bi ak ci réew mi yàlla defal ko ci lu kawe njortam ci barke Seydina Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon daal ni ma ko waxee léegi rek kenn ku toog di ma déglu yëgal ni bis bis bi sa bis la asalaamaaleykum wa salaam wa rahmatullah mbokk yi mi ngi noonu Cheikh Ahmed Tidiane Ndao yéene mooy nam daan def rek ku ne mu jox la carte wala mu waaxu ba sa kër jamono andi lii mu ñëw ci canaba tv point com macha allah tele bu matale bi kon ku ñuy seetaan rek yëgal ñu nag yëgal nañ la ko ku mën a agsi baax na ku mënta agsi tey ñaan it baax na waaye lu ci waay mën a barkeeloon baax na parce que kaamil am na kaamil bu nu sañoon nag ku nekk def ca ndax nag loolu la laaj bu ko defee nag lépp mën a ñoŋ euh, Cheikh ñu ngi lay ñaanal bis bi yàlla na nga ko yàgg def yàgg ko taxaw ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bis baa ngoog benn bis la tam xarit ba ci suba ga tàkkusaanu Seydina Cheikh waaye tey kër biir kër biir euh, këru Baye euh, Mot Ndaw fa lañ koy defee duñ ko defee ci mbedd mi loolu dañ fa jaral leeralaat